Baye Ndiaye Ngalgou di président mouvement ànd defar. nga waaw ñu ngi leen di nuyu waa presse bi yéen ñi ñëw yëpp di di leen sant aussi euh, lu tax ñu def geste bi te yàlla dafa def tey ci Sénégal comme ni ñu ko constaté euh, taw bi taw na fi bërkaat démb ñaari fan taw bu bëree bëri euh, mu am lu bëri bëri lu mu yàq ci ci dëkk yëpp ci Sénégal du Tivaouane kese ñu gis aussi le président de la République lancer le plan Orsec déclenché ko. bon ñun ñu jàpp ni en tant que doomu Tivaouane en tant que doomu di sénégalais je pense que euh, état bi li mu mën na mi ngi koy def mais ka yu mel nii bu amee je pense que ñun ku nekk Sénégal bu nekk war na mën a jóg taxawu askanam donc suñu loolu su lañ gisee jóg ni gis ndox mi ñu war def le tour fi ndox wi taa yëpp fi ndox wi inondé yëpp dem seeti sinistre yi masawu leen vraiment bokk ak ñoom vraiment métti yi nga xam ne ñu ngi koy dund si loolu la ñu xëy jël ay mesures yu am solo wut ay camions. pour ñu dugg biir Tivaouane pour pomper ndox bi yàlla def ni démarré nañ ko depuis démb tey aussi bi ñu si xëyee ñu ngi si et je pense que tey incha allah ndox dootu fi desati ci Tivaouane donc loolu moo waral ñu def geste bi pour jàppale population matériel bi aussi tamit ñu indi yàlla dafa def fii ndox mi taa bari na te boo gisee ndox nit déjà bu amee ndox mu dugg si biir këram li nga mën def mooy dimbali ko soulager ko ba ndox mi génn mais que soo soulager aussi tamit ndox mi fu mu taa dañuy jàpp ni faral lu bari bari ay yoo bari donc si loolu la ñu xalaatee ni aussi li jaadu mooy jàppale woo waa service du jeune da leen laaj ni lan ngeen xalaat ne bu leen ko jàppalee di ngeen mën a ba pompe dëkk bi fi ndox yi jaar yëpp ñu pomp ko pour que au moins euh, mu bañ a andi benn feebar bon ñu jox ñu benn liste expression de besoin yàlla def ñu honoré